yaay booy nuyu naa la. ah fay naa tur bi naka la. lan nga bokk ak ki nga xamante ne moom mooy soxna Xadi mu ñàkk bakkanam. damaa ah, ah, mhm. yaayam sama rakk ñoo bokk baay. Mhm. waaye comme ni ko caan waxee dimanche daal lañ ñibbi dimanche mhm. dikk na fi ni ko réer ñu jël di wëri. bi ñu dikkee ba toog tuuti ki ko yoroon dikk ni dee na. daal lañ sax ñu daal ñu ngi ci njàq rek tiis ki def jëf ju ñaaw ji ni mel ñoom ñaar dañoo amoon problème wala. ah dégguma ne loolu lañ sax ndax ko yor moom ñu ko may wax si man ne leen réer na réer na. Mhm. ñu toog tuuti ñu ni moom lañ sax yoruñu lépp ñu daal. ka yor daal moo xam lépp. métti na ndax ñoo jur mhm. waaw waaye nag ñu koy sant suñu borom bi ndax yàlla ñu ko do ko moo ko def mhm. ni la ko mhm. ok ban message ngay lancé man daal comme ça li ma la wax rek waaw mënu ma seexu leen loolu ndax lu ma la seexu loolu damay fer tey boo doon wax gouvernement bi parce que gis nañ ne Sénégal instant bi rey bi dafay bari lool lool lool lool boo doon sàkku ndimbal ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite lan lay doon man da li sama wax leen ku rey ñu rey la ndax rey ëpp na waaw ndax dañuy rey ñu tëj la nga am ñetti weer ñeenti weer génn ci kaso bi ñu ne da ngaa ñu génn ngay taxawaat su doon ku rey ñu rey kon ba tey bi jeex soxna ngi lay fay bi naka la Umu Umu lan nga bokk ki nga soxna rakk yaayam mooy sama jëkkër mhm. waaw Xadi de ku baax la ku yaru la mhm. yaay ji it ku baax la ku baax la ku yaru la mhm. ti Xadi Juuf xamul lu dul julli jàng alxuraan moom laa xam ci moom yaayam it ku baax la keroog ba mu feree la ko jox tàntam jooj di Awa Njaay waaw xoolu ci gëstu ci defu ci dara wóor na yàlla waaw moom laa xam ci moom daal l'essentiel daal yaayam baax na Khady Diouf baax na waaw billaay am naa lu ma naqari lool ndax xale bu tuuti nga violé ko ba pare ray ko lool lu ma naqari la suñu sañoon duñ dégg lu dul kaay jël gi dañ koy muur mu sëyi loolu suñu sañoon loolu lañuy ñuy dégg si moom waaw maa leen di sant leen gërëm seen télé bi yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg lool jërëjëf